bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu noo ngi ziara kilifa yu tàdd yi teew ci jotaay bi këyit bi ma tiim muy yaari këyit sëñ ma sàkka tënk ci lenn ci li mu jot a teewlu ci kilifa yi fi teew ci biir barab bi xam ci suba léegi wala dégg ba léegi ñiy ñëw ci yemee bu kenn xamul mu toll waaye kilifa yi jot a teew fi mu toll ñu tudd leen waxtaan yu cant yi ñu topp ñaareel bi mooy tomb bi mu bi ñu sàpp woon mu waxtaan ko jagleel ko bis bi mu jëm ci tànn ngay jikko loolu itam li mu ci dëkkal muy nii ñu jëm cee jëm dara incha allah ñu wax ne Serigne Moustapha Mbacké Mouhamad di xalifa sëriñ Mbàkke Soxna Lo teew nga ci barab bi ak njaboot gi nga xam ne ñooy kuréelu ahibaa yi Seexul Xadiim di jamono boobu teewal nañu fi itam ci njiital alxaaji sëriñ Mbàkke ak ci seen jëwriñ sëriñ Njaay Géey ak mbokk yi dal yëpp sëriñ Maxtaar Mbàkke moom sëriñ Murtada Xaadimu Rasuul teew na fi sëriñ Xaari Mbàkke Jagara teew na fi sëriñ Bay Awa Njaay Màkka teew na sëriñ Cheikh Mbàkke Diyooli teew na sëriñ Saxeer Njaay Yomba teew na sëriñ Xaari Mbàkke Gaynde Fatma teew na sëriñ Saar Buubi Mbàkke teew na sëriñ Faru Mbàkke Daaru Rahmaan teew na sëñ Xaadim Mbàkke Gaynde Fatma teew na fi sëñ Abdoulaye Mbaye Kéré teew na fi sëñ Moutala Baas di xalifa sëñ Mbaye Baas ak njabootam sëñ Mbaye Baas teew na fi sëñ Moxtaar Mbàkke teew na fi sëñ teew na fi sëñ Xaadim Diouf moom sëñ na fi sëñ Sayar Gom teew nañu fi sëñ Maame Guèye Ngath ak ah, ay rakam teew nañu fi sëñ Massamba wax ne kuréel bi nga xam ne ñoo yor moom organisation bis bi ñoo ngi yëkkati ay cant di ko beral mboolem kilifa yi waaye di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa aada yi jëge ko ci docteur Assane Ndiaye monsieur le ñoo ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay waaye ñoo ngi leen di gërëm bu baax te rafetlu taxawaay bu am solo bi ngeen taxawee ci bis bi waaye di gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu te ku ne xam na ne politique ak diine ak àdduna ñu ànd kenn ku nekk sa teewaay ci bis bi ak wet ci féete ak nan ci jàppe loola yëg nañ ko xamuñ ci dara dañu ko bëri ñu ngi lay sant di sant de yàlla ci yow di la jox wàccuwaay ak daraja ji la aduna jox ñaanu la ko yéene tey ñaan ko yokk di leen sant bu baax a baax a baax waaye ci biir loolu yëpp muy wax ne li ñuy wax CRD sax woon nañ ko daaw mel ni jàppandiwul bëggoon nañ ko ren mel ni jàppandiwul sëñ Massamba ànd ak boole bay kii fam di wax ne képp koo xam ne ànd ci mel ni pexe bu mën a mu am ñoo ngi la tàllal loxo ndax gis nañu ne benn bis gën koo yelloo bis bi tedd bii bisub Serigne Babacar Ndiaye Thiergane ndax bis la boo xam ne amul ci goxi àddina wala pàcc suuf fenn fu mu amul fi nu kon nag loolu ak yóbbante la boo xam ne borom yowal organisation bi ñu ngi ko àndaan sëriñ ma sàmb ànd ko mboolem yi di ko ñu ngi sant bu baax a ñu ngi ñëw di ko jàllale di ko yaatal ci ay waxtu yu wuute ba àdduna bépp man cee jot fii nu toog taxaw ñaan yi ñu ngi ko def direct ñaan yi di enregistré fenn fu nekk àdduna di ci jot loolu yi cant la koo xam ne nee na ñu ngi leen koy beral di leen kañ ci seen jàmbaar bu am solo boobu itam nee na ñu ngi sant képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi ak moo xam muy bu feeñ bu ñu mën a wax wala muy bu nëpp goo xam ne mënuñu ko wax ñoo sant ñëpp di sant mboolem sécurité yi ñoo ngi def ñu ngi taxaw di saytu bis bi ak di ko taxaw ba dara manqué ci ñoo ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax sëriñ bi na lenn ci ay ayat yu gàtt ak i ahadis ak lenn ci ndénkaane jëm ci tedd ngay jikko jikko ci lañ yona ci lañu yónni yonant bi sallallahu alayhi waaye ci lañu yónni yonant yépp itam yonant bi nee na sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu li utammima makarim al axlaq dañu maa yebal ngir ma mottali tedd ngay jikko tey waxoon na ne ngëm bu mat mukk lu dul dafa tege ci kaw jikko ju rafet kon ak diinu kulluhu wal xuluq diine lépp mooy jikko ju tedd tey nit ngir àddina mën a jàpp faw da koy tabax ci jikko ju tedd jëlee nañ ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na akmaluhum akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqan nee na jullit ñi ka ci gën a mat ngëm yàlla mooy ka ci gën a rafet jikko kon ndekete ngëm yàlla mënta mat mukk lu dul jikko ju dafa am lan mooy jikko ju rafet laajoon nañ ko yonante alayhi salaatu wasalaam mu tënk ko ci ñetti baat yu gàtt mooy seen man xarama waat yi man xarama waafu am man zalamak bi nee na boo bëggee am tedd ngay jikko nee na nanga tabax sa dund ci yetti keno yi ma la bëgg a mooy képp ku la dakk yow na ko jox ku nee la képp ku la dagg na ko jox bokk na ci jikkoy sëñ Tuubaa di dàq ko fay di woo ko bay di neexal sa bopp ko soof ku dul kuy may loolu bokk na ci jikkoy sëñ Tuubaa daa nga ko fay sax mu lay dàq am di la neexal kon Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa teg ñetti kenn yoo xam ne mooy mën a téye dundu bi mooy sir man xataa képp koo xam ne dagg na la yow na nga ko jot bokk na ci jikkoy sëñ Tuuba ku ko daw mu dab la ku ko faj mu dab la neexal la waaye ku ko dog mu jokk la yonent bi sallallahu alayhi noonu laa dund meloon bari na ci yéefar yi ñoo xam ne taxaw nañu lool tar bu jéggi dayoo ci di ko fitnaal di ko teg ay tuuma di yàq ab deram di wéet ak ñi ko gëm di leen influence waaye jikkoom ju dal li jikkoom ju rafet ju nooy moo waral ñoom ñëpp ba ñu mujj dugg ci diine bàyyi nañu nekkoon fekk si ko ci lislaam kon jikko ju mooy tax nit ki am réussite ci waaye waxati man xarama yonent bi ne ñaareel bi tax nit ki jikko man mooy képp ku la xañ nga jox ko képp koo xam ne ku doon séddale doo am doo am yow waaye bu fekkee ñuy séddale sax loo am nee nañ yow boo dee séddale na ko njëkk a jox loolu bokk na ci jikko yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam melowoon na ni te digle na ko itam Cheikh Amadou Mbacke day defaat dafa amoon jamonoy gàmmu mu génne li ko fukki nag daal di na nañ ko jox diw ak diw ak ba mat ñu joxe juróom-ñeenti nag yëpp bàyyi fa wenn na sëñ Saar bi gisee wenn nag daa wax ne anam nag wii lu ko fi bay ñu ne ko wii day bàkki diw nga na nañ ko ko jox waaye diw moom dalaa jubluwul dara dalaa jubluwul ne koo xam ne jubluwul te saa yuy séddale tekki ko kay na lay jublu nanu jël nag ko yëg ko ñu jël nag ko ko kookee jox ko gi ñu ko jox nag ko moo sabab am nooyam ba moo dellu si waat diggante ba mu melaat na mu war kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu digle boo ko defee rek da nga gis jeexital ba fa sens waxati man xarama waaye bu ma ñetteel te gën a jafe mooy waafu am man darama mooy na nga jéggal képp koo am ne koro tooñ la bokk yi toll nañ ci jamono boo xam ne tooñ yomb na lool te jéggale jafe te waman nag bu illa man afa ba'da maqtada nit ki balaa ko ab sànni dafa jekku ba ñëpp xam ne jekku na mu nangoo jéggale ngir yàlla kon jekku jéggale mooy jikkoy sant jéggale nag aju ko ci jéggulu ak jullit bu fekkee day jéggal mbokkam jullitam bu bu mu toog sax naan bu ma jéggaloo déedéet na ko jéggal ngir yàlla loolu mooy am solo sëñ Tuubaa daa waxoon ne sëñ Tuubaa daa waxoon ne képp koo xam ne tooñati nan la bul ne danaa wax ba mu faju wala danaa jëf ba mu faju daane boo nee danaa wax ba mu faju wax day sotti bu géej nga lab ca boo nee jëf ba mu faju jëf ja day sotti bu gaynde fàdd na daane bu la nit tooñee nga yëkkati dara dóor bu ko deretam tuuru wala bëñu mot bu mbooloo bi ñëwee sa jëf rek lañ fay fekk waaye duñ fa fekk la mu wax moom jëf ja dañ fay fekk kon jëf ja fekk bu sotti ko na gaynde fàdd la yow nee na bu fekkee ne nit tooñ na leen nga wax ko baat bu ëpp nga wan jéggi ko baat bu ëpp ñu dem tooñ nga jeex baat boobee mas na faa des ngeen di dund at yu yàgg-yàgg lu ngeen rafetoo rafetoo bu dee si ngeen yem ci yow wala nga ne si ngeen yem ci moom baat bi day dégg si waat sens maanaam mënatoo daw ci jamono ba génn baat boobu kon baat bi soppi mën a génn nga lox ci mu mooy def buñ la tooñatee da ngay muñ yàlla fayal la fayal daa ne man de ba ma mos a muñ ba léegi ñu bàyyeetu ma ndax dañu maa toll muñ yàlla fayal ma fayal xam nga ne lii day xeeyu yàlla la ak payu yàlla ndax penc bii ñu toog tey di tudd yàlla di tudd alxuraan di tudd sëriñ bi di tudd mag ña fi newoon nii wan nii wan nii ci ginnaaw lii moo fi jafewoon lool yeewu nañu leen lor nañu leen rey nañu ci ñoom nangu nañu seen i kër nangu nañu seen i tool teg nañ leen fitna waaye bi muñ rek ànd ak Serigne Touba ànd ak yàlla rek moo fi des comme jeexit juru mën a taxaw ko waxtaane ak jeexit yoo xam ne mën nañ ko topp ko ci roy bokk na ci jikko yu rafet a te da ngay jikko nit ki du lu mën a faj rek danaa ko faj du lu mën a faj rek nga tey ji mu jeex damaa mën a maa fekk ba noppi yëg ne yàllaa ko ëpp kàttan te gën koo jekku bindee fi te teewul day muñ ak di jéggale ak di suñ borom dafa tàgg lool wal kaazimiina al-ghayz wal aafiina ani n-naas wallaahu yuhibbul muhsiniin wal kaazimiina al-ghayz mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy war na mer suñ borom ne tàgg naa lool sama jaar ñi a xam ne léeg-léeg nga def ne lu leen métti waaye danañ fexe ba waxuma ñu koy jëfe wala ñu koy wax waaye seenam xaar kanam sax du ca feeñ seenam jàmbaar dana leen may ñu wan mer bi nga xam ne mer bu doon jubum ñam dañ koy wan na ko du feeñ sax ci seen kanam gis nga baat yu jëfandikoo kas mën rëy wala aafinaa ni naas nga xam ne nit ñi danañ leen lor waaye jàmm rek lañ leen di wat ngir laa diri leen wala yuhibbul muhsinin suñu borom ne man yàlla day bëgg naa ñi rafetal loolu kon gis nga rafetalkat yooyu lu leen di jural mooy bëggeelu yàlla te yàlla bu la xasee bëgg nga la def waayam nga def xejjam boo nekkee waayam def xejjam bu féete woo la féete woo sa lépp ku la bëgg mu teral ko ku la noonu mu jëflante moom la si yow du ci nekk kon wal kaazimiina al-ghayz wal aafiina ani n-naas wallaahu yuhibbul muhsiniin loolu it mooy li ñu am na bindkat bu ko doon tagg ak Cheikh Ibrahima Diouf daan ne makaarimu axlaaqi afaadili jaamiun fa aafin anil jaani walil xayfi kadin tedd ngay jikko yi te xali ko woon ci nit yàlla yëpp tedd ngay jikko yooyu dafa daje ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye bu siniñe yaa daan ne fa aafin anil jaani kenn mës a dégg ku ko tooñ mu fayu afawtu anil ahdayi turan afawtu anil ahdayi turan jéggal naa sama noon yi ñëpp sans exception amul kenn ku set ne ñëpp la ma si jéggal te ku nekk xam na ne li ñu ko tegal lépp ay tuuma la tey nag tooñ la tey amoon na carte nag mën a jàmmaarloo ndax boobu Cheikh Babacar Ndiaye nii ci ginnaawam ànd ak mbooloo sëñ Mor Maane ci ginnaawam sëñ Aliou Diouf na ci ginnaawam Cheikh Ndofane la ci ginnaawam ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bu yëkkati woon kàddu jiyaat jaatam mooy gën a rëy jaati Maba gën a rëy jaati Abdul Xaadir gën a rëy jaati Cerno Souleymane gën a rëy jaati ku fi mos a taal jaar ca dina ndax mbooloo bi ko toppal donc ñu woon ñooña nañ ko gëme woon gëme wuñu woon ñooña nañ ko nangole wax nangoli woon ñooña te kàttan gi yoroon ci yàlla ñoo yëngu ko waaye terewul li si ñu taxaw wax démb rek xat damu li ñuy wax xat damu bantu xat li muy gaaw a gaaw a damm bal takku xat damu daa jógee muñ xeex ko inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa abdan xadiman wal muhayminu shahin moom teg tànkam ci ragal yàlla ak dundal xam-xam yi ndekete la suñ Babacar Thiergane waxoon bi mu jëmuloo sëñ bi ne ko ne luy sa yitte mu ne ko laa sax fa lambay sëñ bi ne dënd ba yàgg ndax sëñ xam na lambay bu ñuy wax lambay jooju jamono tekkiwul ni dëkk bu ñuy séddale fii la woon déedéet lambay ab canton la woon ni ko canton am laa doone canton ak feneen doone ko lépp aju mu ne mu ne diine diine sax fa la mbay sëñ bi dafa jàkk ko xam ne li bëgg amul lu ko gën a def sëñ bi dellu ko laajee ko Babacar ne luy sa yitte mu ne ko diine sax fa la mbay islam sëñ bi ne ko li ngay laaj de dem ci digg géej samp fa ay digg yeew fa gerte na nga ko gën a yomb. allahu waaye nag na xam ne positif mën na ko fee mën mooy yitte mën na ko fee mooy dana xasaay moom suñu Babacar lépp ba mu def ko dara dara xaw day wax ne xanaa Ababacar Thiergane da ko yëngu. kon gis nga yitteem fi mu tolloon ci yàlla moo ko may tey jii lu mu bëggoon ci làmbaay suñu borom defal na ko ko ci làmbaay kon yitte lu mu mën ko may dem teew waaye yitte nag muñ moo koy taw ak bañ a fayu barab bii déggoo fi buñ na buñ taxaw na sëñ Babacar a rey sama maam doo ko dégg déedéet amu fee. wala am na fi. déedéet sëñ Babacar daal jaar lay sama maam kenn déggu ko fi déedéet xeexal sëñ Babacar rek sama maam faatoo déggoo ko de turu xat damul dara yàquwul waaye lépp da ko daan dégg di ko mën ngir ba suñu borom si ko faat ko mu tey ci liñ bëgg kon nag. fa aafin anil jaani wal xayti gazim sëñ Ba ñaar yii lañ ko mooy. mos a jàpp jéggal na rek fa aafina an jaahil wayal xëy si kaasim lépp loo xam ne moo ko mos a metti naqare na ko itam jéggal la bokk na ci jikko yi tànn nag mooy al wafaw bil aadi muy topp koo xam mu ngi a jeex mooy suñu borom nee na wa awfu bil aadi inna al ahda kaana masuula na ngeen fonk ab dëhër na ngeen fonk kóllëre na ngeen fonk ab diggé waaye bu fekkee koo jàkkaarloo di wax moom moom moo jàpp wax ja waaye yow jàpp loolu moo tax déception yomb ndax léegi da ngay jàkkaarlu nit wax ak moom wax di koy xeeb di wow koom digee digee ba mu leer nañ waaye bu ngeen tàggoo foofu nag mbir may doxee lépp tamit loolu kat bokku ci jikko ju tedd ji nga ne moom la ñuy ci bis bi kon damaa ma Cheikh Amadou Mbacke nga fànn daa am ko noonu Mbacke loo wax def ko mu ne ko déedéet wax def ko yàllaa ko daana yar taali bii ni leen lu leen di wax da ngeen ko nopp mooy li ngay wax ci sa làmmiñ na daje ak la ngay fas te du dëgg ci te soo jógee yëpp na nga koy jéem sa kàttan ba lu jamanti nga xam ne dogalu yàlla ko waral waaye doonul sa pexey bopp doonul sa càggante bopp loolu nag bu demee bay bëgg a jaar day mel ni jikko ju rafet moo def bëgg a jaar léegi koo di dara mu siiw koo dénk dara dénkaan la ya koo jox ab liggéey liggéey ba daanu koo dégg kees mu këpp ko koo xuloon mu sàkki sab sàkk loolu nag fi ne jamono toll ko ci jikko ji rafet bokk na ci al a as sidq dëggal yaa ayyuha allazina amanu taqulaa wa kunu maa saadiqin dëggal nit ki daa war a dëggal doon nit ku wér koo xam ne li ñu wax layak lacc lacc pexe ay pexe gaafe yooyu yëpp de day nekk nit ku wér rek nit koo xam ne bu nee la weex na day weex ba faw bu nee la tooy na itam wow na day wow lu yi nga xam ne ñettal mooy toroxlu mooy li jafe ci jamono toroxlu ngir yàlla mooy wàcc léeg-léeg suñu borom jox la daraja waaye wàcc rek sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo gën ñëpp daraja waaye terewul ko na mën a ànd ak way suufi na wërsëgu àddina la ko ci yàlla daan jox kenn xamul mu toll waaye teewu ko na mën a ànd ak way ñàkk yi gis nga fi mbiram tolloon waaye teewu ko mën a ànd ak ñi ci suuf léeg-léeg alal dana yóbbu nit ci dootul mën a ànd mukk a way ñàkk yi bokk yi loolu du jikko léeg-léeg darajay àdduna wala pal dana yóbbu nit ki ba àggale ko foo xam ne dootul mën a ànd mukk ak way suufe doomu aadama lii tax mu man mooy lu mën a ñëw ci kaw suuf ak lu mu toll du tere mën a am woyof ak torox lu ngir yàlla ba mën a jëflanteeg mbokk bi néef loolu bokk na ci jikko yu tedd yi te it nag maa tawada ahadun illa rafahu llahu awul kenn ku ma sa toroxlu te yàlla yëkkatiwu waaye buum yi dañoo jaawaloo bay jëm suuf bay jëm kaw ku ma sa yàlla daana ko ci suuf iblis kat ku ne xam na ne bu dee jaamu yàlla képp ak yege moo ko gën def malaaka yi waaye rëy rëylu nag moo ko aar ba a'uuzu billahi joo dégg mina shaytaani rajim rek moo ci nekk ñëpp maa maa si di ko mosul rëy moo ko wax sëñ Tuubaa ne alaykum bi sidqi wa tawakkuli wa bi tawaadu'i wa qasri al-amali sëñ bi ne dénk naa leen ngeen dëggal te bàyyi seen bopp yàlla te ngeen di toroxlu te gàttal seen i mébét sëñ bi nee dénk naa leen loolu bokk na ci buy tànn yi ne dénk naa leen muñ suñu borom ne wa bashiri saabirina lazina isaa asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun musiba moomu ñu ngi koy tudd rek ci musibatul mawti waaye du musibatul mawti kat musiba bari na lool musiba jot nit ci alal mu doon commerce commerce ko daanu ay waay bu mu ne sama noon yi bu mu ne ñeem a yàqal bu mu ne ñeem a def dem ci kuraan ko ki nga langal place ak ki nga jàkkaarloo la ku ñuul ki déedéet da nga doon commerce perte jëkki wóorul ko mujjee am ne inna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu mooy jël sa bopp delloo ci yàlla te xam ne lu man xew da koo neex te ci moom la bàyyi ko léeg-léeg musiba moomu itam doon musibam njaboot ñëw dal ci sa njaboot jële fi sa doom wala jële fi sa soxna wala boo xam nu natt ba mën a ñëwee ci njaboot loolu it la ci yàlla sant mooy nga muñ muñ ko rafet te bañ a dem ba ñànk ne innaa lillaahi rek wa innaa ilayhi raaji'uun léeg nga topp benn mbir di ko sàkku ba sori ca lool amoon ca yaakaar sa yaakaar far ca tas fekk na loolu doonul lu yàlla sàmmoon ci yow doonul lu yàlla dogaloon ci yow nee na loolu ñànk ak toog di ja jaaxle ak jàmbat am di ko tuubaal bindee fi déedéet loolu bu ko nee na li li li am solo mooy nga delloo lépp ci yàlla mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna kon nag loolu bokk na ci liñ gën a mën a tànne ci jikkoy sëñ Babacar kongo bi ñuy tëj nag mooy dafa am loo xam ne moo ko jëkk def ci yoon bi moo am sëriñ Babacar fii lañu toog ci njaay ñu ne weer feeñ na te muy weeru ko ñu xaar xaar sëñ bi génnul mbooloo mi fas yéene jëfandikoo li leen seeni xel jox waaye bi sëñ bi génnee daa wax ne képp koo xam ne gisoon nga ko na nga sën mu te xam ne seytaane nga gis sëñ Babacar Jargaan mi nga ne daa toogoon feeñal ne moom julli wut jàpput moom bi mbir mi egg ci sëñ bi sëñ bi la ko woo bu ñëw sëñ bi la ko Babacar ana lu tax ba say naw la def àndoo ca mu ne ko mbàkke man yaay sama weer loolu waxoon sëñ bi yaay kumpale diine nag taxul muy wax yaay sama weer xam na baax lan mooy weer ndax ku toll si mu bëgg a siise bu fa def juróom-ñeenti bi ngay ñëw fees nga dal waaye dafa ànd ak xam-xamam nga dem wuti kilifa kon bu fekkoon toll ni mën naa bay lool loolee mën naa toog fii ñu ne nee na bay waaye dafa ànd yaay sama weer la waxoon yaay sama weer joojee moo xam nag murit yëpp. waa nañ cee gën a tënkuwaat gën cee dellu mooy jël sëñ Tuubaa def ko muy sunu nafi di sunu wér di sunu xibla di sunu weer di sunu kaaba di sunu jàkka di sunu màgg di sunu lépp mbir mu nekk ñu ko cee jéglu lan ca wax loolu la ñuy jëfe lan ca waxul sunu yoon nekku ci bu muy yëpp maasi tënku foofu roy ci sëñ Babacar exemple bu mag a mag a mag la ci ñu jël sëñ Tuubaa dénk ko sunu diine te ko cee jéglu nag lépp lu mu digal def ko lépp lu ñuy teral bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf